jàppee xotti war ma maanaam manque de respect institution notamment parfois le président de la république parfois le procureur de la république parfois les agents yi nga xam ne ñoom ñoo lay jàpp ci marché yi nga tegante ak ñoom dënn wala nga xëccoonte ak ñoom mais est-ce que yaakaaruloo aussi respect ak cër war na ci sa diggante yow aussi ak institution yi pour euh, d'abord ci propos yi ak ci comportement pour mu mën a tontu sa question dama bëgg mu leer sam bopp ah, loo ci bëgg mu leer wax président de la république. ok xam ne dafa ñàkk dëppoo ak respect. waaw mais attends c'est-à-dire man dégg naa la ci ci émission yàggul procureur de la république ngay wax. non je commence par le président. non attends mais grand le président de président procureur dama bëgg euh, wax président Macky Sall. te mu nekk irrespectueux. waaw mais bari na. ci sa discours yëpp mais non je m'explique tout à l'heure rek wax nga ko. wax nga noo xam ne noonu lay saax saaxee alalu réew mi ni muy def mais attends te yow loolu ayen preuve nga ci am jabar <laughs> wax ma. fab ngañ fab ngañ naa la wax li ma wax procureur procureur bàyyi Sall la dafa dafa jël dogal bañ a nekk procureur de la République. mu nekk procureur Macky Sall procureur njabootu fay Sall procureur APR ak benn mbokk yaakaar lan nga ko argumenté yow nag boo buggee nekk mhm. journaliste Sall nga mhm. wax ma ko amul problème non parce que xam jàmbaar boo waxee ne <laughs> dama saaga président Sall <laughs> mhm. mais foog nga jox ma ba pare nga ne bëri na foog nga jox benn exemple li ma wax léegi rek li nga wax ci plateau bi man du ma nekk di recherche suba li nga ma wax li nga wax fii rek léegi li ma wax ci respect ci président de la république mën naa ko ne am amul Sénégal ñi jiite Sénégal mhm. dañ ko jaay doxandam yi impérialisme ñaareel bi mhm. astur bi fi des ñu jël ko aakimoo ko naka lañ ko aakimoo huit milliards de fonds politiques par an yi ñuy jox passe cinq millions dix millions ay militants yi ñuy jël di jox ay parti politiques quatre millions par mois fekk ne ñu ngi am euh, euh, téeméer boo jël ci doomu Sénégal mais yow da nga koy da nga ko gis da ko gis mun naa si joxe. loolu loolu mënuloo ko wax ci kii di fëtti teguloo ci sa bët. mun naa si joxe ñetti firnde. waaw benn wax loolu. Mhm. nekkul xotti war na président président de la république ñaar am naa si ay firnde. bu fekkente ni non su fekkente ni corruption la wala concussion la. la loolu joxe ñetti firnde. Mamadou Ndoye njiitu LDMPT moo fi wax ñëpp dégg ne président Macky Sall 4 million par mois la doon jox LDMPT benn ñaareel bi am na benn partie bu ñu woowee yoonu askan wi. Mhm. ci buntu crise Ebola. Mhm. fii la wax sénégalais yëpp dégg ne dañoo woo njiitam ne ko am un million. Mhm. te un million yooyu dafa nar a wëy parti boobu jël xaalis bi jox ko Eva Marie Coll Seck ne ko yow yaa ko gën a soxla ndaxte ñu ngi si jamono Ebola yaa ngi def ket ba pare ne président de la république. bul ñu joxati xaalis. ndaxte tant que voté wuñu loi sur le financement des partis politiques mhm. xaalis bi na ko dugal ci askan wi mhm. muy ñaari preuve mhm. ñett mu am sama baay bu baax àll kan Mor Ngom woo ko pale ne ko président de soxla pour waxtaan sur des questions d'enjeu majeur mu ne ko d'accord àll kan dem dem pale mu egg ci buntu pale bi gendarme bi jox ko benn enveloppe mu ne ko lii lan la mu ne lii lañ ma jox pour yow mu ne ko déedéet man ndaje laa ñëw mu ne wol Mor Ngom Mor Ngom nekk ci téléphone doyen Alla Kane enveloppe bii président de la république moo leen ko baaxee yéen mag yi te incha allah weer bu nekk di si ci jot. Mhm. muy ñetti firnde wax loolu. Mhm. wax loolu du xotti war ma. Mhm. président de la république. am nga beneen laaj. mooy procureur aussi. waaw xam nga. procureur procureur ak aussi waaye procureur avant ñu ñëw ci sa comportement yi. mais lan laa saaga ci procureur. Ah, mais procureur de la république respect la aussi institution la. rafet na jaaduwul nga koy nga koy wax ay procureur ay Baye Sall wala ngay wax naan procureur euh, famille dynastie Faye Sall et autres loolu si cër la bu fekkente ni da ngay. xeex ñaar laay wax ñaar laay wax mën naa respecter li nga wax. Mhm. damay respecter nga am gis-gis bu wuteeg sa mbos waaye d'accorduma ak sa gis-gis ndaxte dama jàpp ne euh, institution yi moo war a def. li tax ñu war ko respecter bu fekkee procureur de la république yàkkamtiwul lu dul Karim Wade mu accélérer dossier yi tëj ko mm-hmm. yàkkamtiwul lu dul Khalifa Sall mu mm-hmm. accélérer dossier bi tëj ko mm-hmm. yàkkamtiwul lu dul Guy Marius Sagna mu accélérer bi tëj ko te Cheikh Omar ñebbe aan naan 4500 lay jëndee kilo ñebbe pour suñuy doomu étudiants yi Mamour Diallo 94 milliards. Hmm. muy toog di xoole ñu saisir ko. deful dara ba majorité parlementaire bi naan dañuy taxawal comi euh, commission d'enquête parlementaire. Hmm. coowal 29 milliards. bu mbay ñaa mu ne pat ak yeneen ak yeneen. procureur boobu taxawaayam tëddeewul njaaxaanaay. maanaam day def. mais yow yaa ko ko war a wax est-ce que yow yaa habilité pour ko que yow yaa ko ko war a wax. doomu Sénégal. ñoo ko koy wax bu fekkee président de la République mënu ko ko wax. bu fekkee président de la république dafa ragal procureur wala procureur di ko defal liggéeyam lu ko sant ñun ñi nga xam ne président Macky Sall surgale ci ñun ndaxte daf ñu war a servir ñun peuple sénégalais ñun ñooy souverain ñun dinañ ko fàttali li nga xam ne mooy yoon maa wax Pape Ngagne procureur de la république tëddeewul njaaxaanaay procureur de la république li mu fi nekkee mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey moo tax il mérite le nom de Baye d'accord loolu aussi moo indi comportement bi nga am vis-à-vis parfois dañ koy gis ci marché yi bu ñu la jàppee nga xataraayu ak ñoom xëccoonte ak ñoom est-ce que loolu yaakaar nga ni aussi lu rafet la. muy ñett wax nga benn président wax nga ñaar procureur ñu ñëw léegi ci sama posture ak euh, force de l'ordre yi euh, ñaar wala ñetti at yi passé ñun waa FRAPP li ñu wax ci force de défense et de sécurité yi amul beneen organisation bu ko wax dem nañ ba. bind suñu kayit dugg commissariat par commissariat di ko joxe lan la ñu bind ci kayit yooyu dañ doon ne yéen policiers yi matu leen ñeenti junni ci Sénégal. Mhm. et pourtant Sénégal war na am lu minimum quinze mille policiers. Mhm. seen liggéey métti na vous avez une surcharge de travail ndaxte yéen yéen trois mille et quelques policiers yaa ngi di def liggéeyu quinze mille seen nelaw doyul seen matériel doyul li ko waral mooy saytu wi nu réew mi di bàyyi wurusu sabadola téeméer boo jël 90 yi 95 yi génn astut moo fi des donc du ñu am xaalis bu doy pour mettre leen dans de bonnes conditions pour seen lim mu baax d'ailleurs sax kaaraange gi boo boo gisee mu ñàkk mais 4000 policiers naka la ñuy defee liggéeyu 15000 policiers loolu ñun ñoo ko wax wax la même chose ci gendarmerie wax la même chose ci sapeurs-pompiers xam nga la laa bëgg a wane dama bëgg a wane ne ñun ni ñu défendre policiers yi gendarme yi suñu sapeur pompier yuy fay daay ak butéelu kireen xaw ma butéelu Casamance ak ñoom seen ñu wax jooju amul benn organisation bu ko def comme ñun léegi nag ah à ah, une loi injuste s'y opposer est un devoir maanaam nooteel nooteel diine bi nga bokk ma nekk musulman moo ne boo gisee li nga xam ne du yoon da koy naxarlu ci jëfin mënoo ko nga naxarlu ko ci wax mënoo ko nga naxarlu ko ci ci xol ñun nag. ba ci outrage. ñun nag ba ci ba ci outrage. lenn laay lenn laay laajte. non non non xam nga. dama lay tontu mais xaar ma ah, tontu la. xaar ma la yow. doo procureur. ah non procureur mu ngi fi. non bul wax non non non. non non xoolal ah, wax yow yow non non non. non. <laughs> Euh, Guy procureur <laughs> mais Guy. ah non Pape bu fekkee ñun dañoo jalgati yoon man particulièrement yoon na def liggéeyam waaye dama bëgg a wax. ñun du ñu nangu ñaaw ba pare ñàkk fayda xam nga luy loolu mooy du ñu nangu ñu ñuy sàcc ñu ñuy noot ba pare naan ñu du ngeen ko fi waxee wala nii ngeen ko fi waxee. man personnellement mais egg ci ba ci xëccoonte ba ci. ba ci ñàkkante ak ñoom ah. loolu moo tax non dama da nga ciy egg ba ci ba ci ñàkkante ak ñoom ñoom ñoom alkaati yi ak seen tenue. gis nga bu ko jaree. waaw bu ko jaree bés ñu dem ñun ñëpp taxaw buntu pale te kenn du ñu tere avancé parce que xam nga lan la ngay yow. sa jabar say doom ah, bu jigéen yaa ngi wax lu gën a graaw nag ah. yow yaa ngi annoncé lu gën a graaw Pape Ngagne yow sa jabar sa doom bu jigéen bokkul ci ñeenti jigéen yiy dee bés bu nekk Sénégal d'une grossesse ou des suites d'une grossesse buñ ci bokkoon doo waxee nii yow sa doom bokkul ci lu ëpp juróom fukki xale de moins de cinq ans yiy gaañu ci Sénégal bés bu nekk ndax lan biir bu daw ndax lan infection respiratoire aiguë mooy ay sëkkat ak ay socc parce que parce que dañoo jël suñu alal di ko manque ronguñu baadoole di siim cere buur parce que non attends xam nga réponse bi ngay tontu nii xam nga lii nag aussi beneen affaire la yaa ngi ciy dugal suma famille seen yoon nekku ci li nga xam ni moo am non attends non mais attends jàmbaar non mais xam nga yaa ngi leen seen yoon seen yoon nekku ci franchement Guy Marius li ma la laaj lu simple la yow alkaati yi